asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ah ñoo ngi nuyuwaat ñëpp di leen masaw waa coono waaye nañ koy waxee boobu ba léegi coono ji farata la ah dafa am suñu benn mbokku daara bu jigéen bu ñu ko mas a wax nañu daal mbir yi dafa yomb torop daal mu ne ko ah ci lan mu ne ma nga am sa boroom kër ba muy metti nga nekk ak moom dund ak moom lu ne daj ak moom lu ne ba yàlla defal ko sutura tawféex ñëw amul lu dul lu muy def lu dul dem takki ñaareel teg mu ne ma loolu dafa yomb torop ma ne ko yaa doole sa liggéey mu ne ma ah lu tax loolu ma ne ko nga am sa suuf boo def doomu guy di ko toppatoo di ko toppatoo di ko toppatoo muy sax di sax di sax ba tabaarakallaahu mu tollu na mu toll léegi yow mi nga xam ne satala nga daan jël di ko arrosé ba mu tollul nen nga yaakaar ni bu demee ba toll ni kër satala goo ko moo koy arrosé ba léegi mu ne ma kau déedéet Gui ne ko bermutol kay guy gi nga jëmbat ba mu toll na mu war a toll nga war a xam ni nag léegi soxla est-ce na ci yow ko ba mu na mu nga yow yaa ngi tàmmoon di ko arrosé satala mu xëy di soxla chaque jour fukki siwo ndox a ah, dëgg la am na soxna na soxna yoo xam ne seen jom raw na loolu waaye fukki siwo ndox ci ñaari loxo ah du mu ne mënul nekk de waaye dina xaw a jafe de waaye jafe gi jaaxaluma naqari deret gi siy toof man moom ma jaaxal ndax war a gàddu fukki siwo ndox ndox ak nit <laughs> xam nga dañuy fàtte ni litre ndox un kilo la maanaam butéelu ndox bu dix litre dix kilo la bu dee siwo bu nekk dix litre la yaa ngi war 100 kilo mana ab mbër daal war koo gàddu ba fa nga war jëm laay xam nga wax ji du foofu de wax ji mooy boo àggee ak na affaire ya diisee ngay lox loxi ndox bi di tuuru nga nga di nga yoon nga bëgg xëpp guy gi moom forcé wala di moom forcé wala tegal ko yaa ko teg sa bopp ba pare bëgg a ut coupable moo tax mbir yi du noonu xam nga xëy na dafa am incompréhension bu xaw a am ci yëf yi te c'est très normal parce que jigéen dafay faral di fonctionner émotion dafay faral di fonctionner sentiment xolam daf kay faral di ëpp doole on est d'accord waaw wala dé le problème mooy il faut que ngeen comprendre ni yéen soxna yi ni ngeen di fonctionner ak ñoom góor ñi ni ñuy fonctionner dafa bokkul gis nga góor bu la nee am naa ñeenti soxna la muy doyee aawa gi ak la tax mu takk ko du bokk ak la muy doyee ñaareel gi ak la tax mu takk ko du bokk ak la muy doyee ñetteel gi ak la tax mu takk ko du bokk ak li muy ñeenteel gi ak la tax mu takk ko ku si nekk dafa am fonction ci biir gouvernement familial bi noonu la mbir bi demee Les gars gouvernement familial le ministère de l'intérieur le am ministère de l'éducation am ministère des finances ministère des affaires étrangères am ku a rôle jouer soxna ministère de l'intérieur mon un yoré kër gi ak la nek ci biir kër gi sen ak fonctionnement lum wara taxaw ministère de l'éducation mom moy fexé dolli kenn ku ci ci kër gi waxuma yi de kese muy borom kër gi di ay mbokk jullitam ci biir kër gi lu mu am ci xam-xam am ko ci xalaat bokk kook ñooña ku ci nekk di dolli sa morom muy ñaar ministre de finance ñëw moom mooy bàyyi xel ni lu kër neex neex ñaqu boroom faw ñu bàyyi ko xel te mooy boroom kër dana xëy ah dafay go dafay def lu mu mën dafay dem wuti indi boo ko bëggee teg chaque jour dépense su cinquante mil dana doy waar de kon nag moom it foog mu waxtaan ak ay mbokku jullitam ci biir kër gi ñu fexe ba organiser seeni mbir façon boo xam ne li kër gi di soxla moom lu bu indee li mu indi ñu fexe ba xajal ci la ca mën a xaj jiital farata gi te bañ a jiital bëgg-bëgg yi kookoy ministre des finances ministre des affaires étrangères moom mooy fexe xam la nekk ca koñ ba la leen ca war ak lan lañ ca war a moytu la leen war seen diggante ak seeni dëkkandoo kan mo ci nekk ci jafe-jafe kan mo ci feebar kan moo ci tawat kan lañ ci wax kan lañ ci war a taxaw sob taxul daw àq moo tax gouvernement bi am solo ah gis ngeen nag dafa am loo xam ni il faut ñu waxante ko te muy dëgg maa ngi benn vidéo benn waa ji du jullit c'est un Thaïlandais am na juróom-ñaari soxna ñoom ñëpp ñoo bokk benn kër te koo ci laaj doom yi kan nga ci jur mënula ko wax ndax nañu àndoo booloo ndax xam di ñoom juróom-ñaar ñëpp ñoo bokk li ñu bëgg ci biir kër gi te mooy jàmm am fi moo tax waa ji koy xool ci vidéo bi ma ne ko yaa yooyu leer waaye ma xalaat ni koo xam ne du jullit amaana sax gëmul yàlla moo mën a am jàmm ak tawféex googu ci biir këram waxuma la juróom wala juróom benn waaye ñetti jullit ñetti jullit ci benn kër mënul nekk ku fen ku fen parce que bu ñu nee sëy jaamu yàlla la yàlla ko tax a jóg ba bu ñuy takk sëy farata yàlla su sunna yonent gi te lu ñëw rek yàlla lay ñëkk évacuer ah am na ko waxul lu dul dëgg de moo tax mbir yi il ñu set ko xanaa xamoo leen ni gis nga bëri na sax lu ñuy kaas ci volet économique mais daw lu mel nii moo tax daw polygamie moo tax lan moo tax xam nga nag dafa am benn règle de base maanaam takk ay soxna boo ko mënul mënoo ko gis nga nag soxna su seetaan waa joo xam ni waxuma la soxna sama yore waaye mënul yore boppam bay yore keneen bay yore ñaari soxna kooku boo duggee ci moom yaa tooñ sa bopp nag dañuy waxante dëgg gars yi yéen tamit eh, dañuy waxante dëgg am na ñoo xam ni fii seen i mbir xam nañu ko de bu ñu xawee toog seen poos xaw a am nu mu xëccee rek ñu ne ah takk jot na du noonu de du noonu de àq dafa sew dafa doy waar rawatina àqi sëy yi ci aju dafa bëri moo tax waxuma la ñaar waaye benn sax balaa nga koo takk faw nga seet ko ngeen bàyyi ko xel de léegi ka nga xam ni la mu war a dajale ci ay condition dajale na ko ba li mu war a mën mën na ko gis na la mu war a gis ba war a takk gis nga am na loo xam ni gis nga ki ki yore li ki yore moyens yi mu war a yore organiser boppam organiser dundam maanaam kooku bu amee ñaar ñeent ñeent ça dépend yow miy jigéen la la war ci kër ga yaa ngi koy def moom li mu war a indi ci kër gi moo ngi koy def bu dee ko yore entreprise am bu dee ñeenti soxla la am soxna ku si nekk mu am lum la ca dénk ndax ku si nekk ak li nga mënee nag loolu la yàlla def mbindeef boo gis ak la ko yàlla jagleel la ko yàlla xiir muy domaine de prédilection mu fexe ba organiser këram façon boo xam ni entreprise bi yépp lu mu liggéey ci xaalis ci seen ñeenti loxo yi lay tege ku si nekk ci say njaboot bu jàngee ba matal balaa muy dem feneen di déposer yi CV nga indiwaat ko ci kër gi mu wóor ko ni kenn du ko fay luñ ko war ta fay salaire am du tardé ay soxlaam du tardé kooku sécuriser wul njabootam ah soxna yéen lay waxal de ah la ko war ci yéen defu ko. Où est problème fiiraange nag d'accord na lu normal la waaye nag soxna Astou Kane leen ciy jox leçon boo xam ni ku yàbbu di ko nafar mooy li mu waxoon ni la lu fiiraange jigéen ñëpp a ciy tëdd waaye dof dof moo ciy biddanti kon nag am na loo xam ne mën nañ leen ko comprendre waaye nag di faral di nafar baat ba Serigne Cheikh waxoon ne ko tu n'es pas le nombril du monde lu jara sóoraale la moom it lu jara sóoraale la ndax nag mën nañ leen fonk mën nañ am cofee ci yéen lu ne mën na nekk waye nag farata farata la tuduna na àq la tudd nii la mbir yi toll kon nga am na lo xam ni mako waxe rek nañ ko bañ def affaire sentiment nañ ko bañ def affaire émotion nañ ko def affaire compréhension nañ ko def affaire complémentarité nañ ko def affaire yéné c'est très important bu ñu jëkk bu ñu defee loolu rek yaakaar naa ah li ma gis de mooy li ëpp ci problème yi ñuy jàmbat dana daaxu sëy nag moo am lu mu bindoo te mooy problème mënu ci ñàkk c'est impossible waaye problème bi lu mu am am am nañ ko regle problème nañ ko régler ci mbiru sutura nañ ko régler ci mbiru jullit nañ ko régler ci mbiru jullit waaye nekk fii diw def na nangam ma ne lii lay def ak billaay ku ci yàlla amant di nga xam ne ndeke CFA am na fu ma àggul lu jar a seet parce que nag euh, xam nga sëy gu tas danger bi ci nekk la nit ñi nattul moo tax xëy nañu ñu xaw cee sawar xanaa xamoo ni sëy bu ñu nee tas na ñaari ñi ko séq balaa ñoo tudd keneen li yàlla di njëkk def gannaaw amande bi mu leen di teg personnellement kenn ku ci nekk ndax jéppi gi mu leen di jéppi faw mu départagé def addition wu àq yi kan moo gën a tooñ moroomam parce que sëy dafa am sécurité bu ci am gis nga àq yooyu ci biir sëy yàlla mën mën na ko oyofal te mooy journée sàngam a ah, diwde de yàgg na ak gàddu àq waaye fexel ba suba nga dabaatal ko fekk sëy gaa ngi am yërmande googu moo ngi koy doxal bu tasee nag mu ne kay leen yowee eh, yaa war a fay amande sàngam yowee eh, bàyyil sa ree yi yow nangam nga war a fay bu loolu amee ba pare nag mu soog a jëm ci famille yi ku ci nekk ci ñaari famille yi di ci gàddu sa bàkkaar bu ñaari famille yi jeexee penc gi soog a ñëw ñëpp am nañ seen wàll ci bàkkaaru sëy bu tas kon nag ku yaakaar yaakaaree mbir yi lu oyof la ëpp naa def moo tax am na détail yoo xam ne ku ci bëgg a attardé wu wala nga bugg koo coow fu ne danga nga xamul ci li nga dugg lan la moo tax il faut faire très attention